amul benn xibaar bi nga xamante ni moo jóge ca beneen wàll ga kon yaakaar dafay tas waaw tànk ñoom ñi ngi dégg xibaar bi nga xamante ni moo jóge ci beneen fàll ga di ñëw di leen wax ak ban taxawaay ak ban toogaay dafa nekkee kon yaakaar dafay sax ñu dem bu mu duggee ci biir àdduna si lii yàlla ndiir bañ ñun ñi suñu yaakaar tas moo tax mu yëndee mu téere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 mu bañ a lu tax mu koy jàng pour muy góobale si aay góobale mu ne ndax xolam bañ a yëkkatiku ndax mu bañ a puukare di yaakaar ni moo gën ñëpp te itam mu am yërmande ci nit ñëpp loolu moo tax téere yi jóg teg nit teg nit ci yoon ga waaye tey ji ci bëri dañuy jóg ne téere yi melul comme ni mu ko bindee bi bu njëkk ba Yesu Christ nag baabu leen tontu ci li nga xamante ni moom la ñu